Et c'est vrai, je l'ai dit à Sonko, mon frère ou prier Fadjar chez lui le 27. Mais avant d'être allé chez lui à Fadjar en moto, dissimulé pour me cacher des khannas pour me cacher aussi des euh, gens qui échappent euh, euh, ou qui tentent d'échapper à la volonté d'Allah et dont il nous demande de nous méfier. Hein. Il dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de tous les êtres qu'il a créés contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds mooy gars yi nga xam ni ñooy toog guddi ci seeni der naan Idrissa bu baat bi waxati mukk tëf Idrissa na dof tëf Idrissa nangam tëf wala wa min charri ida xasad les envieux lorsqu'ils envient bu ñu yoboo rekk noppalu li yàlla def ci man sotti na ñu la wax daf ni mention waskur fil kitaabi innahu kaana siddiqan nabiyan wa rafaxnaahu makaanan aliya kenn amul sama turandoo rekk la yàlla sàkk amul bàmmeel ci kaw suuf moo tax bu ma déggee ñu naan cadavre politique il est ma ne mort bi nag moo ñëw tey di wëliis pour ngeen xam ni mu ngi fi yëpp nag intéressé wu leen de wante bu ma ko jiitalul bu ngeen déggee li ngeen déglu si du ngeen teewlu lii may wax léegi nag bala ngeen a xàddi ma ñëw ci li leen intéressé benn bi mooy je souhaite et je soutiens que Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de quelle que soit l'issue du procès en appel et même en cassation. Pour qu'il soit clair aux yeux des jeunes qui sont avec lui, que ça ne sert à rien de casser et de brûler. Personne n'a peur de leur leader. En tout cas pas moi, qui ai failli être son patron. Et il me l'a rappelé quand je suis passé le voir. Il est venu à deux reprises chez moi avec l'intention de militer dans mon parti. Maintenant, qu'est-ce que je suis allé faire chez Ousmane Sonko Le 27. Le 26, Daman Ndogou ak président de la République mu jiite ma timis ma jiite ko gée ñu julli ba pare ma ne ko timis ji ci li nga biral ayatul kursi yu nga tari ak Quraysh ma firil ko ñaar yëpp ne ko lii lay signifier mais bi muy songu ayatul kursi yu bi yokku naa sama teewlu ndax daf ma daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jóge foofu ñëw permanence rek song ayatul kursi yu ma ni yàlla na egg de sinon dinañ am problème de mu tàmbali alaaw laaw laaw ma ne ah wóorul de mais Macky botam dafa leer nañ ma ne ko Quraysh bi nga ñaareele ci la sa lettre de mission nekk fal yaabudu rabba haza al bayt alladi at'amahum min juu wa amanahum min xawf suñu boroom mi ñu sàkk dafa warloo ak ñun ñaari devoir nu nourrir contre la faim et nous rassurer contre la crainte ma ne ko mooy sa lettre de mission mooy lettre mission bépp chef de famille ñaar la yàlla euh, lonk ci sa ndodd ñi nga yilif yaa leen war dundal ba du ñu xiif yaa leen war a aar ba du ñu jàpp ma ne ko te fii ñu toog di reer reeru buur bu neex bii am nañu reerul am na ñu dul ndékki suba am na ñu dul añ te réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le 30 bu Ousmane Sonko dee wuy yi tribunal réew mi dana takk ma ne ko am naa ci xalaat mais duma la wax xalaat dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulilah bu doxul yaa moom sa décret bi ngay signé nga dàq ma mais dangay nangu ma doxal te duma la wax li may doxal lan la mu ne ma d'accord wóolu naa la ma dem ci laa demee kër Ousmane Sonko léegi nag la ma wax ak Ousmane Sonko moom ngeen bëgg a xam est-ce que am na ku fi mokkal suuratu najm kii kii moom mokkal xam nga bi yàlla di wax ak yonent bi daf ni wa awxa ila abdihi ma awxa wa awxa ila abdihi ma awha mooy et il révéla à son serviteur dañ ko bëy ne taweet seen nopp yi di déglu mu ne la ma ko wax wa awha ila abdihi ma il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla mooy seen yoon newu ci la ma waxanteeg moom seen yoon newu ci wante daal la ca juddoo ci yiw pour Sénégal ak yéen ñii ba ngeen xëy 3 avril marche amul ñu défilé défilé bu neex président de la république invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kaso bi li jur loola ca fajar googa la judd salaamun aux États-Unis le président de la République des États-Unis à chaque fois qu'il est amené à prendre une décision la dernière phrase qu'il prononce avant de prendre la décision mooy it is in our vital national interest to do this loolu bu ko américain waxee bu doon dalaa war a dóor bombe nucléaire boo pare moom la lay dóor pare na ça veut dire que la réflexion est parachevée ils ont déterminé de façon extrêmement précise leur intérêt vital national et ils agissent en conséquence. It is in our vital national interest to do this. ce fajar-là, in our Senegalese vital national interest to have Idrissa Seck on his bike ride to Mr. Ousmane Sonko's house before Maintenant, pourquoi je soutiens sa candidature Il a le droit d'être candidat. Selon la constitution sénégalaise, selon la ñett ñoo amul sañ-sañu déposer dossier conseil constitutionnel ñett moom bu ñu yóbboo seen dossier dossier ba du jàll wala waru la jàll du ngeen ma laaj ñan ku njëkk ki mooy ki amagul fanweeri at ak juróom ki am 30 ans wala 29 ans yàkkamti costume karawaat bu yóbboo dossier ñu rejeté ñaareel bi mooy ki amul nationalité sénégalaise exclusivement maanaam guinéen bi jàpp ni Afrique booloo bu yóbboo dossier ñu ne ko warta jàpp ñetteel bi mooy ki jot a def ñaari mandat yu tegloo ñett ji ñoom seen dossier du jàll wala warula jàll maintenant mu des bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa nekk ci kanamu yoon yoon di ko topp loi électorale maanaam code électoral bi tënk ni élection war a doxe loolu du du lu peuple bi décidé ay homme politique ñoo daje waxtaan xalaat et cetera ñun ñii sax changé nañ ci lu bari changé nañ ci lu bari ci dialogue politique national code électoral boobu moo yokk ci ñett yi ma wax te constitution bi wax ko ay mbir ay mbir ñoo wax ni ku ñu daan ku ñu condamné de façon définitive maanaam dem nga première instance ñu daan la nga dem appel ñu daan la nga dem cassation ñu daan la cour suprême bare na ci say mbir justice su Sénégal wax na ne yow mii kat lañ la doon tuumaal ñun justice bi seet nañ ko am na lu ci am daan nañ la bii daan ñu ne am na xeeti daan yoo xam ne buñ la ko daanee sañatoo nekk électeur bay nekk éligible loolu code électoral moo ko suba suba suba bu homme politique yi dajaloo waatoon def national wax ni nañ ko ci dindi ñu yóbbu ko assemblée national ñu voté ko ñu daal di war a mën a nekkaat candidat suba wante bi ma waxee ca mars ja ba bal yi tàkk ñu naan nañ leen lakk kër idée nangam nangam dama wax ni na Ousmane wax li ma waxoon bu dee deful dara na wax ne d'ici à l'extinction du soleil personne ne pourra prouver ma culpabilité parce que nag man loolu laa waxoon dama jàkkarloo ak Ablaye Wade jàkkaarloo ak àddina waxuma woon rek ak waa Sénégal maa ngi wax ak sama partenaire ya nekk États-Unis dégg ne Ablaye Wade nee na luubal naa 40 milliards yu ma denc Amérique te ñoom ñu xam li ma am xam ni ma ko amee du ma bàyyi Ablaye Wade puisque kaalawu na def affaire u màgget yooyu ñu normal ko mu yëngal aras du ko def du ma ko def je me suis défendu et je l'ai dit au commissaire Assane Ndoye quand il puisque quand il a fini l'enquête vers 13 heures, il a dit dans son PV, nous n'avons aucune preuve à charrier contre le Premier ministre Idrissa Seck dans le cadre des chantiers de Thiès. ñu woo ko ne ko na fa toog quand naa samay bagage ba pare ñu ne benn bulletin de renseignement moo ñëwaat ne on a trouvé chez moi des armes des sommes d'argent incroyables et des appareils sophistiqués d'ailleurs loolu Ablaye Wade am na ñu bari ñu ngi ci saaga ndax nee na leen lu tax avant ngeen ko yóbbu perquisition yéen ñett yooyu yëpp am ngeen ko mënoon ngeen faa def ay armes def fa xaalis def fa machine indi télévision ñu filmer ko ngeen ne moom la mais ngeen bind ko ci seen bulletin bi yóbbu ko perquisition ñëw naan ma dara newu fa yéen danaa ne ko yàlla dafa xareñ sëriñ Cheikh daf ma doon wax jaam bi bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci amal namm-nammam ci jaamam bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci amal namm-nammam ci jaamam Ablaye la ci mënu dara tout chef d'État qu'il était, je lui ai rappelé son origine et sa destination sous ñu ne tegginuwul ni ma ko waxee puisque kenn du wax mag ancien spermatozoïde et futur cadavre ma ne leen circonstance yi ma ko waxee bu dellu siwaatoon ma wax ni ko yàlla waxe te moo gën a ñagas ni ma ko waxee am déet nutfatan ida tub ah jeex na boobu moo gën a ñagas na ko firi am <laughs> firi ko firil rek voilà firil nutfatan ida tumna kooku bu ma ko firee léegi ñu bari benn waay mus na ma ni yow nag dégg naa la ngay xat aflahal muminuun nangam nangam léegi boo eggee ba ci walladina hum li furujihim xaafiduun illa ala azwajihim aw ma malakat aymaanuhum bu ko firi sama kër ndax maa malakat ji moom <laughs> mu ne ko bu ko ma ne ma ne Serigne Cheikh encore raison nee na Sénégal aada la ñu xam xamuñu xaqiqa moo tax ñu bare ruus def éducation sexuelle seen kër ruus nañu ko te pourtant mag ñi bind nañu ci lu yéeme waruñoo xaar ba tubaab yi ñëw naan ñu éducation sexuelle nangam nangam ñu koy soog def moom daf ñu ko daan defal. daf ñu ko daan defal nee na waaja daan jóge daara rek ñu jox ko benn soxna xamul lu mu war a def ak soxna si moom jóge la daara ja rek c'est pas normal c'est pas normal donc je lui ai dans mon intervention en mars dernier, si tu n'as rien fait, dis-le. Si tu as fait, demande Ne sois pas orgueilleux. L'humilité est la mère de toutes les grâces. L'orgueil est la mère de tous les péchés et de tous les échecs. nit warul réye juum naa baal leen ma qad aflaha almuminuuna alladina hum fi solatihim xaashiyaun loolu la yàlla wax nee na bienheureux sont les croyants qui sont humbles dans leur relationnel salaat mu ngi signifier jonction imaam yi ñoo koy firee julli day firi julli bu dee diggante jaam bi ak boroomam la wante bu dee diggante jaam bi ak moroomam relation rekk lay firi loolu la tàmbalee alladina hum fi salatihim xaashiun walladina hum anillah